nu fonk ko ndax nit su fekkee dafa bàyyi ñëpp ñëw jaayante ak yow war nga ko wax charte yi xam ne moo waral jaayante bi gis ngeen noonu it noo ngi ci jàkk ja ba fa alxaaji abdul aziz jógee nag ca la dem ca jumaa ja jumaa ja nag ngeen dégg sànq moom ci boppam mu fay waxtaan Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Serigne Moustapha Sy ci ndigalu Serigne Moustapha Sy ndax dañu di ñaari njaboot. ndax dañu di ñaari njaboot. ndax dañu di ñaari njaboot. njaboot yu fekk si njaboot. njaboot yu fekk si njaboot. njaboot yu fekk si njaboot. ndax tey Serigne Moustapha. ndax tey Serigne Moustapha. ndax tey Serigne Moustapha. ku ne xam na ni moom moom kër gi. ku ne xam na ni moom moom kër gi. ku ne xam na ni moom moom kër gi. mooy taaw ci Serigne Babacar Sy. mooy taaw ci Serigne Babacar Sy. mooy taaw ci Serigne Babacar Sy. di taaw ci El Hadj Abdoul Aziz Sy. mooy taaw ci El Hadj Abdoul Aziz Sy. di sunu kilifa. di sunu kilifa. di sunu soppe. di sunu soppe. am ñeewante ci sunu wàll. am ñeewante ci sunu wàll. te ko doxal. te di ko doxal. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. koo xam ni. koo xam ni. bu teewee. bu teewee. ngay surga. ngay surga. su la yabalee. su la yabalee. su la bëgg na nga tiitaru. bëgg na nga tiitaru. bëgg na nga tiitaru. loolu rek mooy li ci nekk. loolu rek mooy li te bu teewee. te bu teewee. te bu teewee. surga bu teewul. bu teewul. surga lanu surga lanu waaye comme noo ko teewal nag waaye comme noo ko teewal nag bëgg na rek nu tiitaru waaye bëgg na nag nu tiitaru ngir yàlla ak ñewent ngir yàlla ak ñeewantanu ak yàlla ak xaritoo nag ak yàlla ak xaritoog nun ndax loo gis ndax loo gis ba ci diggante surga kilifa sax ba diggante surga kilifa sax xarit dana ca tab xarit dana ca tabbi xarit dana ca tabbi fa tabarakallahu fa tabarakallahu tabarakallahu nu ngi koy ñaanal nu ngi koy ñaanal nu ngi koy ñaanal lu Cheikh El Hadj Malick am li Cheikh El Hadj Malick am Eh, eh, eh, doomam yu tedd yi am ko. doomam yu tedd yi am ko. yal na ko ci yàlla jox. lu ëpp li mu jox ñëpp lu ëpp li mu jox ñëpp. lu ëpp li mu jox ñëpp. lu ëpp li mu jox ñëpp. ba mu mën ñu ca sedd sunu wàll. ba tabaarakallaahu ba mu mën ñu caa sédd sunu wàll. ba leen ca seen wàll. sédd leen ca seen wàll. leen ca seen wàll. dafa mel na. dafa mel na. dafa mel na. ñi fi ñëw ñëpp. ñi fi ñëw ñëpp. ñi fi ñëw ñëpp. njabootam lañu. njabootam lañu. njabootam lañu. waaye yéen nag yéenay njabootu wanagam. waaye yéen nag yéenay njabootu ala wanagam. yéen nag yéenay njaboot. fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal ñëpp njabootam lañu ñëpp njabootam lañu njabootam lañu waaye yéena di wanagam waaye yéena di wanagam waaye yéena ndax Serigne Babacar dafa daan wax ni ndax Serigne Babacar dafa daan wax ni ndax Serigne Babacar radiyallaahu dafa daan wax ni ñëpp taalibe lañu ñëpp taalibe lañu waaye waa jàmm gën ñooy sama wanag waa jàmm gën ñooy sama wanag. waa jàmm gën ñooy sama wanag. yéen itam yéenay wanagam tabaarkalla yéen itam tubaarkalla yéenay wanagam. yéen itam tubaarkalla yéenay wanagam. yàlla yéen yéen la ko yéene. yàlla yéen la ko yéene. yàlla yéen la ko yéene. jox na leen ko. jox na leen ko. jox na leen ko. yàlla ngeen ko yàgg a muurloo. yàlla ngeen ko yàgg a muurloo. yàlla ngeen ko yàgg a muurloo. te nu bokk koog yéen. te nu bokk koog yéen. te nu bokk koog yéen. nu ngi leen di ndokkeel ci bis bi. nu ngi leen di ndokkeel ci bis bi. nu ngi leen di ndokkeel ci bés bi fa tabaarakallaahu bésu barke la fa tabaarakallaahu bésu barke la fa tabaarakallaahu bésu barke la ñaari yoon ak ñetti yoon ñaari yoon ak ñetti yoon ñaari yoon ak ñetti yoon tiwaawoon tiwaawoon tiwaawoon bésam yëpp bésu barke la bésam yëpp bésu barke la bésam yëpp bésu barke la ajjuma ajjuma ajjuma bésu barke la ci lislaam bésu barke la ci lislaam bésu barke la ci lislaam juddu yonent bi juddu yonent bi juddu yonent bi bésu barke la ci àdduna bi yëpp bisu àdduna bi yëpp. bisu ci àdduna bi yëpp. muy ñetti bés. muy ñetti bis. ci benn bés. ci benn bis. fa tabaarakallah. yal na yàlla dogal nu jariñoo ko. yal na yàlla dogal nu jëriñoo ko. Ah, mu mel na nag. mu mel na nag. mu mel na nag. mel na li ñu rek moo ci nekk. mu mel ni li ñu doon junj moo ci nekk. yàlla. yàlla. liggéeyam. liggéeyam. liggéeyam. moo demee noonu. moo demee noonu. fa tabaarakallaahu. dafa am lu ñuy tuddee. dafa am lu ñuy tudde dafa am lu ñuy tuddee. Zaman. Zaman. Zaman. ak Makaan. ak Makaan. ak sonal. moo sonal. moo sonal. garab. garab. garab. yàlla na ko ni. yàlla mën ko ni. neel dégg. neel dégg. mu ni dégg. mu ni dégg. waaye du ko defee noonu. waaye ko defee noonu. dañuy jëmbat rek. dañuy jëmbat rek. di sotti ndox. di sotti ndox. di sotti ndox. di toppatoo taatu wa. di toppatoo taatu wa. muy jóg ndànk ndànk. muy jóg ndànk ndànk. muy ba ni léng. rek. fa tabaarakallaahu. noonu la yàlla di defee. noonu la yàlla di defee. njaboot bu ko muñ nag. njaboot muñ nag. dana am ker. dana am ker. dana la yàlla dogal. loolu la yàlla dogal. loolu ba tax na kon nag. ba tax na kon nag. kër gii. kër gi kër gii. ah mooy sunu penc. mooy sunu penc. mooy mooy garab gu ni mooy garab gu ni mooy garab gu ni ci kër gi lañu xaj. ci kër gi lañu xaj. ci kër gi lañu xaj. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. kon moom mi nga xam ni. kon moom mi nga xam ni. kon moom mi nga xam ni. mooy taawu ñi ko moom. mooy taawu ñi ko moom. ko moom. bala noo ñaanal sunu bopp. bala noo ñaanal sunu bopp. bala noo ñaanal ko ba noppi. ñaanal ko ba noppi. ñaanal ko ba noppi. yal na ko fi yàlla bàyyi. yal na ko fi yàlla bàyyi. yàlla yàlla may ko wér. yàlla yàlla may ko wér. yàlla may ko wér. yàlla yàlla àggale yéeneem ci njaboot yi. yàlla yàlla àggale yéeneem ci njaboot yi. mu yebal nga dox. ku mu yebal nga dox. ku mu yebal nga dox. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. tabaarakallaahu. te ni ngeen jëfandikoo ci gàmmu gi. te ni ngeen jëfandikoo ci gàmmu gi. te ni ngeen jëfandikoo ci gàmmu gi. te di ko jëfandikoo ci gàmmu yëpp. te di ko jëfandikoo ci gàmmu yëpp. di ko jëfandikoo ci gàmmu yëpp. yàlla yàlla yàggal ko. yàlla yàlla yàggal.